di kontaan ci siri bi bu baax rawatina nag épisode démb bi macha allah marem moom man dama kontaan ci moom marem jigéen bu baax la de marem buñ ko jàppalee rek bëgg na sëy te tamit seex moom dafa war a nekk góor bu teey góor boo yore ñaari soxna danga war a teey xoole seex bu teeyoon lii lépp du ko ci fekk konoon du ruus daal waaye ndax seex yaayam dafa mën a fen torop te laala tamit nag yaay seex da koy yàq laal la war naa xam ne yaay seex moom dund na may wax ndawam ba mu paase moom mi nga xamante ni moom moo tollu ci sëy moom moo war a fexe baaxal sëyam jàpp jëkkëram li fekk maram woona ko ci jàmm mu jàpp wujjam wujje du dara bokk wërsëg la waaye laal la luy problème moom dafa ne moom rek mooy moom seex loolu nag munta nekk <laughs> marem daal na góor góorgóorlu rekk su góor góorgóorloo daal marem dina am ndam marem même li ñuy wax dafa ëppal marem ëppalul de marem dafay bëgg loo ñëw mu faj ko ci sensé marem te yaay seex munta wax moom ne marem def na ko dara moom daal dafa jël rek daal di far ci làll gaa kay bu sa doom takkee benn soxna ñaan nga yàlla nag mu am beneen nag kër gi yokkute waaye mère bi daal duwul ku baax même Jalika moo ko fa jëlee te ndeysaan Jalika tamit dembali mu wax yërëm naa ko torop Jalika nee na man damay xam ne yàlla dafa ma bindee noonu nitu naqat gis nga bu la yàlla bindee amoo woni soo defalee nit lu baax lu bon la lay fayee loolu la rek Mm, waaye na góorgóorlu rek te xam ne même buñ la fayalee fayee bon dëgg moom dëgg rekk lay nekk te ndax jëlikaa démba moo tax rusul démba joor moo rus ay jëlikaa rusul démb bi leen fekkee ci resto ba moom rusul de te na góorgóorlu rek li mu wax yaayam daal dëgg la man lijjantiwuma loolu waaye ndaxte su koy lijjanti jëlikaa naqar bi mu amee rek da koo doy sëg ku mu kii rek nga wor ko ñuy jégalu bu baax nag di leen nuyu di kontaan ci série bi. ñu xanaa di suñu xalaat euh, ci série bi maîtresse d'un homme marié franchement maa ngi kontaan naa ci yow kontaan naa ci ndax chaque jour nga génnee film yu bees. ah lii daal la ñuy wax jonge ma ne ko lii daal lañuy wax jonge mais laala yaa ngi bàyyi sa loxo de looy doo bay daanu dangaa tiit moom koy nee nga dangaa mën gérer sa bopp jarul ngay soxla ndimbal mais jaan jarul mu lay dimbali nee nga danga nee nga jeeg nga kay taxaw nga pour affronter mais nag bu ci boole mère Diagne mais mère Diagne nag franchement parler faralaate bi nga war a bàyyi seetaan leen ñoom ñaar pour combat bi neex dëgg neexut mais kanta à Jalika très bien kontaan naa ci yow lii laa bëgg lii rek laa bëgg biram mos nga de waaw këy nga ku la gën a jantal yëpp xaw ëpp na kontaan nañu franchement parler merci beaucoup. jaajëf sama gars yi ñu ngi leen di ñu ngi leen di bëggee ba lépp jàmm lépp tranquille affaire baa ngi jaare yoon mais chaque fois daal benn affaire rek la ay riposte quoi mooy. Cheikh day incarné ni kilifa la may kilifa chaque jour balaa wax war bàyyi xel lu bari quoi def analyse def jàngat soo ko wax parce que euh, kër boo yore say doom sax wala ngaa wax war ngaa def analyse mais chaque fois moom bu day xëy rek wax te du def analyse dama suivre action yu bari mais moom day xëy rek wax comprendre loolu moom moo xaw a jaaxal quoi moo tax chaque fois analyse yi muy def. day mel luy wax sax parfois du ci bàyyi xel parce que am na bu émission am na seetaan mu naan lu sama yaay wax laay def te toog ak jabaram ni sama yaay wax dëgg kon dèjà moom foofu def na grand heureux parce que dëgg la yaayam àndul ak marraine mais moom ànd na ak marraine kon foofu war na wax ni ah lu sama yaay wax rek bu ko si topp quoi na nga mel ni waxu ko man tamit li may wax mooy chaque jour yàlla moo ñu boolee xam nga kon nañ ko rafetal asalaamaaleykum yéen waa site bi maa ngi leen di nuyu bu baax ci leen siyaar rafet la bu baax nag épisode bi bi daw bi macha allah neex na am na solo waa di wax seex nag moom bu fekkoon ne moom gàcce da koy rey bii day day bi ko maram tegalee mareem tegalee li ko laal la waxal moo tax nit ki bu mësa gëm te déggaloo sa bopp wala nga gisal sa bopp bul ma sa gëm parce que jigéen ak moroom ja moom surtout jëm mën na koo sosol lu ne te fekk na dara laalu ci mais ndokk heureusement bi yàlla maye mareem xel pour mu aristek laala ba seex ñoom mën nga koo tegal xam na ni moom fi mu toll ni moom laala moom seex amatul ci moom confiance mareem tamit li ma koy wax mooy bi mu demee ci clinique bi seeti yaayu seex bi comme ni mu réagir foofu waru ko def parce que moom bi mu àggee daf ko waroon a jox li ñu koy seete toog dal nuyoo jàmm sante wax bu ñibbeem jotee mu ñibbi mais ni mu doon waxee ak bi foofu dafa mel ni day xaw a kookale maire bi ànduma ci ak Marème moom neex na ma trop mais lim lim man ànduma ci parce que tamit yaayu jëkkër tamit yaayu jëkkër rek waaw yow bu la joxoon sa cër jox ko sa mais bu ko kookal mel ni kuy wax gone ko daw di ko di ko loo foofu ànduma ci ak moom parce que la bu ko yàlla mayee xel moom mu arrêté li ma Marème di wax ak mère bi tamit bu Cheikh ñëwee bu ko ko tegalee tamit xam nga ne ñoom ñaar rek yële yemal dootu amal ci kenn confiance kenn la dootul amati confiance ci moom waaw biram nag moom li may wax ak moom moom mooy moom la koy dal sax dikk ko biram dara biram moom moo ko mooy li koy dal gisagu ko sax góor moom boo gisee mu sàggane jigéen rek moom bul xam lu koy dal ci àdduna waaw di kontaan bu baax nag waa chérie maîtresse nuyu nañ leen nuyu nañ leen bu baax di leen wax kontaan nañu ci seen série bi wax dëgg yàlla macha allah neex na di ngeen defar neex na te ñëpp ànd na ci tey jaar na yoon macha allah kontaan nañ ci trop di wax rek ci Cheikh ak Lalla ak Marème. ak calika waaw léegi li may wax ci Cheikh moo gis Mariam choisir tànn ko bëggal ko boppam kon nag kenn waru ko yàkkal mooy Mariam ak Lalla daf leen war a yemale te warul nekk moom tamit góor benn nopp moom moo bëgg kon ni mu jàppee Lalla loolu la war a jàppee Mariam ni mu jàppee Mariam tamit mu jàppee ko noonu Lalla. yaayam tamit waru koo yàkkal saayam te yaayam lu muy wax mareem waru koo wax c'est nit di nga bañ a nit te doo ko woon waaw c'est su demee ba yàgg nu muy def lal ak lu muy wax dina tas dina tas say say mareem say moom ñu ngi koy tuddee ba ci aras kenn mënu koo tas yàlla rek moo ko mën a tas te lu ko takk tekkiwu ko ci cadre euh, kii kii nag jalika jalika na gën a xàppi loolu bu mu ko méttee xaritam bi ko xelam foofu la toll su defee nii day mel ni moom tamit dafa nopp biram ba léegi day gën a xàppi continuer dundam bu muy dund te su mu sañoon nag mu laajte papier divorce comme dafa divorcé da laajte papier divorce sinon erreur bi tamit mu ngi amaat ci kanam waaw. ci cadre la la dafa war a toog toogaay aawa aaw du musa xaddi day firi di di defar ñaareel bu ñëw mu ku ñëw mu boot la def la sa ginnaaw c'est que dund ba neex ñett yoon amul ba neex soo xasee ba dund ba lu neex romb na romb na la ci nekk yaay defar di xool njaboot gi ak yooyu wax dëgg yàlla seen série moom macha allah te film la ñuy wax film tamit suñ la joxee rôle da ngay kuy ji ba mu jeex leen wax nag kontaan nañ ci trop ngeen baal ma vocal bi gudd na. salaam salaam bëgg naa leen ci lu ngeen nekk nii bàyyi nañ ci jàmm ah man nag démb dama kontaan waaw kay épisode 38 bi moom taj na taj na macha allah ah? Marème xar na fii waaw man yii laa bëgg ci moom yii laa bëgg ci moom muy jaay affaire bandi defanteeg ñoom yaa ma gën a xam mais Jalika nag moom musuma neex mais démb moom neex na ma démb moom neex na ma trop trop trop ndax wane na loo xam ne moom mooy loolu daal nii la soo génnee ci góor bu bon da ngay jéem a dundaat waaw jéem a xoolaat góor gu baax teg ko sa côté waaw kay defanteeg moom mais Marème daal moom. kontaan naa naa taal ci moom kontaanati naa sax laay wax. asalaamaaleykum waa maîtresse ñu ngi leen di nan ñu ngi leen bu baax waaye dina wax ne kontaan nañ ci série bi ñaaw ma trop mi ngi ñuy wettali ñun ñi nga xamante ni sori nañ Sénégal mi ngi wettali bu baax di leen kontaane Jërëful waa mère Diagne moom ak Lalla waaw na yem bokk nañ yemale seen fecci nañ yemale seen fecci waaw nañ ko yemale ci baara bay bañ a ñëw ci ceebu jën bi bàyyi booy bi sëy sëy bi Lalla moom li ma koy xamal lii wujj rek la ce n'est pas la fin du monde n'est-ce pas wujju kese la na gëm yàlla waaw dëggal boppam comme lim fi doon woowee jigéen ñu bëri jigéen ñu bëri bëri bëri bëri fi mu toll nii jongewuñu seen jonge seen jo balaa ngay xam ne jigéen ñu bari jongewuñu li ma lay wax nii mooy bis boo leen takkalee wujj dañuy commencé patiner di tiit waaw te jigéen moom jonge gi nga war a jonge dafa war nekk loo xam ne naturel la war doon ci yow mais laala mu doon woote ci commencement série bi ak fi mu toll ni muy joobee ça fait deux ce n'est pas la même chose nest pas waaw ni muy joobee nii ci see commencement série bi ak léegi bokkul ay sant yi dafa froissé xel mi nekkatu fi lii lan la na gëm boppam toog géré am na neneen nu doon joobee toog gérer gëm boppam Cheikh mën naa fase boobi ci facilement mais nii muy joobee ni dafa salte trop lalla gëmal sa bopp yow laa waxal lalla mareem daal tey daal may naa ko dix sur dix daal mareem moom lay wër fi mu toll nii salaamaaleykum yéen waa Lu Xew TV nuyu naa leen ziar leen bu baax a baax seetaan nañ série bi tey am na solo ah, tamit neex na mm, comme laal la rek laal la moom toujours da yàq dara aawo yi mooy la man bëggatuma nekk aawo sax ndax laal la <laughs> mais man sama problème mooy yaayu Cheikh yaayu Cheikh exactement moom lan mooy problème moom parce que bu fekkee ne dafa am ñaari goro daf leen war a yemale ñaari goro yi ñoo kenn ki ñu bëgg te kenn ki moom moo ko jur ku bëgg sa doom rek war nga ko mën a bëgg mais maire bi dafa bëgg affaire affaire de yéegal kii wàccee kii noonu la fi def jalika jalika dem na abal ko lii mareem nag du jalika mareem dafa pare de te fuñ kupp rek mu baat baatre mu ngi toog leen xaar <laughs> man daal mère bi vraiment man xaw ma leen mooy problème am war na mën a tuddee njaaxaan naay nag jën ñoom ñaar ñëpp uuf leen xam nga yi baaxu da yàq diggante moom doom doomam parce que mi ngi nii di wax doomam bett na ko après doom lan lay wax lu muy jàppee yaayam yàlla rek a xam mooy loolu daal wasalaam salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal seen affaire bi gën a kawe bu baax a baax ci barke Cheikh Mountakha ñu ngi ziar ñëpp ñu bëggoon indi tuuti suñu participation ci Géri Maîtresse ci épisode 38 ñu am ay jàngat yuñ ci def donte bariwut Euh, premier euh, point bi ñu ñëw si diggante Marème ak euh, Cheikh Diagne muy li nga xam ne preuve bi nga xam ne moom moo ko si génne tey ndax li mu wax rek bu fekkutoon bu ko wanewutoon benn preuve see mën na si yàqu te su boobaa itam balaa dëgg di di di feeñ day fekk maanaam jëf wees kon daal maanaam foofu dañuy jàngale ne nit ki chaque jour war nay bàyyi xel ay wax wax bu ñëwee si yow rek del bàyyi xel bu baax a baax baax wax ji waxu lan la bu pare ngay soog a appliqué kon foofu jàngale boobu am na solo bu baax te ñu bëgg a xamal nit ñi ne série bi nekk na série boo xam ne mën naa wax ne dañuy jàpp sax ci loxo ñi koy dund li ñuy def nii ñi koy dund dafa bëri rôle boo ci dugg nag boo ñëwee si rôle lu seedaan li muy def. am nañu koy dund mareem noonu nga ñëw si jariga noonu xam nga buroom joo ñoom ñëpp groupe bi yëpp vraiment ku ci nekk man daal gëm naa ne ñoom ñëpp cuune amu ci ndax ku ci nekk daal rôle bi ñu la jox yaa ngi koy joué normal comme nit ñi nga xam ne ñun noonu lañ ko bëggee te à chaque jour nag dama bëgg nit ñi bàyyi xel euh, rôle ak comportement nit ñi maanaam li ñu leen di jox rôle la rek boo xam ne dañ koy sol bu ñu paree dañ koy summi nekkul ne joor dafa bon noonu la mel non nekkul ne marem dafa réew noonu la mel walla nekkul ne lala nii la mel rôle la bu ñu leen jox rek ñu siy jàngale te jàngale bi ñuy jàngale moom vraiment am na solo trop trop moo tax su ma déggee képp ku ciy def critique rek man daf may jaaxal mais nag nit ki lépp lu mu bàyyiwul xel di ko critique kon yaakaar naa ne ñoom bàyyi nañ leen xel bu baax a baax moo tax ñu leen di critique ñu ngi leen di ñaanal en tout cas mm, maîtresse ak waa Marodi yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal seen affaire bi gën a kawe seen série yi gën a kawe ñu indiwaat yeneen yu dàq yi ndax ñu ngi yeete et puis ñu ngi def ay jàngale yu baax a baax a baax a baax asalaamaaleykum wa parce que man mii dama jaar ci wujj xale bu ndaw laa dama am borom kër yàlla def may sëy ba sama borom kër génn àdduna te fu ma toll damay jooy sama borom kër boobu barki Seydina Muhammad ndax bëggoon na ma peri bëgg goo xam ni kenn mënul comprendre bëgg bi ma bëgg ma nekk ak sama wujj ma nekk xale bu ndaw sama papa may ma ki may may ma dem nekk ak moom sëy ak moom muy neex sama diggante ak sama jëkkër muy neex mu dem benn moment mu naqari parce que lan sama wujj bi ma mayetuma jàmm mayetuma salaam ma nekk xale nag waaw mais teg xale terewul nga am jom terewul tamit nga xam sa bopp xam yow yaay kan sama jëkkër bu daan liggéey ba wàcc à cinq heures laay pare li may def toog dalal ko di ko xaar xeexuma xoloowuma nag xam nga lan laay xeexee sama dàll bu rafet sama yére bu rafet kon dama ne Marème man lépp lu ma doon def rek ni nga koy joué benn instant ni man joué naa ko sama néegu sëy li ngay joué lépp dama cee jaar mareem lu muy def lii lépp lépp lépp ak sama wujju dama ko dund ak moom barki cheikh na cheikh Saad bu mi ma yaakaar àdduna ak laaxira gis nga wujju du dara boo ko wërsëg la rek boo ko rek gis nga ni ku moome nag nga xam ni yaa moome di nga jël sa bis bi nag defar ko bu mu sell te yàlla tax mareem nag dangaa moome te yaa ab gis nga sa goro danga koy defal yow yoroo sa xeet yu baax yooyu nga yor ak say hamburger ak say gato di ko ko yëpp chaque jour bu nee dafa crise cardiaque rek wala dafa jabe rek jëndal luy wàññi suukar bi nga yëpp ko ko mën de damay roc ci yow mareem wallahi lazim damay roc yow euh, maîtresse nag gisuma dara lu ko fiy jële comme ni ko fi maman bi waxee woon rek nan rafetalaat kàddu yi te bàyyi saaga yi te wax ci waxu maîtresse bi am na solo trop man nag euh, jëkkëru jalika bi daf may daaneel biraan daf ma neex de trop parce que dafa am fulla ci li muy wax mais moom tamit day daw res day jigi fi après mu waxaat beneen wax mais marem moo tax may seetaan film bi Marème ak cause de loolu du keneen ku tax man may seetaan film bi Marème rek moo tax may seetaan film bi man parce que dafa am fulla ak fayda ci lu muy def man dama naan toog kiñ ma mayoon moom xale bu góor bi yaayam ak sama papa ñoo bokk ndey ak baay danaan yàq sama der guddeeg bëccëg day teg lekk ma ñëw lekk ko ba mu jeex dem sama yoon Marème lu muy dund ak goram loolu laa doon dund ak sama bàjjen te su ma demee wax sama yaay mu ni ma demal nga nokk nga sëyi loolu ma sama yaay di wax ma nekk xale bu ndaw biñ may may maa ngi am 15 ans tey maa ngi tollu samay 12 ans nga war a xam man xale laa kon Marème Dial li muy sëy man dama ko koy digal mu gën ko tollu ba mu saf gis nga goro léegi ñoo tas sëyi xale yi te yaayu kii nii nu tuddati sax yaayu jëkkëru mareem bi Cheikh Diagne sa yaay dafa war a génn ci sëy bi bàyyi làll mu sëy ak mbareem dinañ xam ñoom ñaar kan mooy def jëfu baadoola bi waaw mën nag tàng xool laa waxee parce que damaa waxee si ku ma bëggoon moo tax ma duggee waxe nii kàddu yi nag bu amee dara lu ci met baa lu ci dëng maa ngi jéggalu bu baax lii lan la ah salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax tamit si maîtresse rek di wax mareem fi ko jàpp foofu la waaw gis nga wujj ak ah, nii laa rek su lay may nakari deret nga leen di may jàmm ongo nag ci jàmm ñoom nangoon uyu ci jàmm yow nekkal ci sa jàmm ak sa jëkkër sa xarit bi daal lim loxo man kontaan naa ci gis nga toppatool sa jëkkër sa gor nag bu nangul nga toppatoo ko nga bàyyi ko ak sa xarit boobu ni mu la ko waxee mu defale la ko noonu tamit fii lu fi ñor bañ koy macc gis nga mareem tey jii dangay xool ni sa lépp ngi feeñ tey dina dem ba benn moment dañ lay bonal mais dañ lay mujj baaxal loo mun nanga ko def day dem ba toor bi yépp ci laala lañ koy teg parce que Cheikh Diagne ngi nii bett leen yaayam di wax naa ko damay fexe ba ñu fase la bii dafa échec mais bii damay fexe ba ñu fase la mareem fi nga ko jàpp foofu la defaral sa jëkkër ay xeeti baax baax waaw nga def li nga xam ni loolu mooy sëy te yaa ngi ci sëy bi nag na gën a dëgër waaw gis nga nit bu nekkee ci dara ñun la yaa ngi ci dara gënal nekk ci dara gis nga ni nga def ba lekki sokolaa boobu defaat ko ba lekk xaalu muloo beneen ba mu fay fekk lii de laa wax ah laal amoo sonal nit ñi laal la sonal nañu na sëy wala mu bàyyi goro léegi tamit kenn xamul nag ban façon lañu parce rek la ñuy def ñëw def li ñuy def ni megum toog kanta Jalika nag Jalika li mu wax ni man tuutuma am bànneex ci sama dund Euh, wax na dëgg parce que yaayam li mu ko junj junj doy na boroom xel foofu tamit liñ fiy jàngale ah bu fekkee sama xalaat naxuma liñ fiy jàngale mooy bu nekk ndaw rek topp suñu ndaw di def luñu neex di sonal doomu aadama yi ndax ëllëg lu ñu def rek ëllëg si suñuy doom lay répété wu te war nañoo dimbali suñuy doom yërëm leen ba bu ëllëgee fu ñu taxaw duñ fa am benn problème waaye xam nga ni Jalika lii ko dal metti na mérito wu parce que ku baax la. ku yaru la ku nangoo sëy la mais nag li ko yaayam wax moom uh, doy na waar doy na waar trop ñun daal épisode uh, série bi ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax a baax macha allah. salaamaaleykum wa rahmatullah waa Lu Xew TV nuyu naa leen ziar leen yi leen wax ne épisode bi ñu doon seetaan nii macha allah kontaan na man de dama kontaan vraiment. parce que Lalla bépp plan bu mu tegoon rek yaakaar naa ne yàlla mu ngi koy weer daal li ma waxoon ne dëgg rek mooy mujj mu ngi ñëw parce que Lalla dafa wàcce boppam wàcce boppam boo xamante ne moom xamul sax fu mu ko jëmee moom li muy yéene Marème nii su moytu si kawam lay këpp ah. parce que Marème xolam dafa rafet yéene wu ko dara lu bon moom jàmm rek la bëgg mais nag comme Lalla ootewul jàmm te mu ngi koy yéene chaque jour safaan dafa mel ne loolu moo nar a ëmbati bu waar si parce que si hôpital bi. Euh, Cheikh Diagne su ma war na dégg yaayam te Cheikh Diagne xam na ni yaayam ak laal la ñoo ñoom ñoo kompaloo Marème kon déjà affaire bi moom leer na waaw laal la nag man de aawa laa waaye damay wax aawa yi bu kenn jël référence ci moom parce que joxewul bon exemple parce que aawa warul comporté woo comme laal la aawa dafa war a yaatu yaatal jàppale jëkkëram mooy lan téyel ko ku indi ndax wujj moom bul sonn Sénégal ko fi ne di nga wujj xanaa nga bañ a am borom kër parce que bo nekkee ñaareel dinga am ñetteel boo am nekkee ñetteel di nga am ñeenteel kon nag nañ ko rafetal rek man daal lii li ma siy jànge mooy aawa yi nañu yaatal man de aawa waaye laal la daal tax na moom wàccee na aawa yi torop trop torop torop wàccee na leen euh, li mu def daal dara rafetu si moom lii maree ma ko waroon a def asalaamaaleykum nuyu naa leen waa Lu Xew TV bàyyi nañ ci jàmm bu baax tey moom épisode bi awma dara dara lu ma ci commentaire lu dul euh, maire bi non maire bi dul nit waa maire bi kon yooyu yëpp moom moo ko teg waaye bàyyi leen ak Marème dana xam ne la ca Jalika du ca Marème Marème rek bàyyi leen ak Marème ñoo koy dafa teg moom ba mu tàpp leen tamit xam naa ko seex ñëw na fekk na leen ñuy wax dégg na baatu dinaa fexe ba seex wàcc la lu dégg na loolu xam na suñ koo liyaatu dégg na loolu moom xaw ma nag nañ seetaan ba xam si wàññi di mujjee ci bëtam ba xam seex bi ñëwee lan lay réagir noonu comme dégg na ko xëy na nag yàlla la leen di àtte ma moom na nekk ci lim nekk rek loolu daal laa koy sant. laal la ma ci ko foofu du ma changé maire bi moom la koy dal mi ngi ñëw ci kanam ko gisagun léegi na ko jàppee noonu fekkee àddinaam noonu la ko nar jàppee rek na dem na dox waaw salaamaaleykum waa maîtresse maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant te di leen wax ni li ngeen di liggéey neex na wàcc ngeen stress yi surtout ñun ñu nekk Europe wax dëgg yàlla yéen a ngi wàcce suñu stress film bi daal neex na trop te li xew ci jamono ji moom ngeen teg ci nit ñi di ko seetaan te di la wax ni tey jii nii laal la li ko dal dafa metti tey jii Marème Diallo mënul xëy tey tey tey def li mu def ci ginnaaw tey tey nga xëy ni dangay àndaat ak laal la loolu yombut te loolu kum doon yow la ci yéen jigéen ñi kenn du ko nangu nee naa leen wujje neexut te kuñ ko fi def di nga def lu raw li wàlla def wala nga wax li raw li laal la wax parce que góor indi sa gal ci sa biir kawlal sa biir duus ab lutiku takk ko tey nga ni danga neexook moom yombul ak laal la loo doon doon grande dame ak loo loo mën a def naan da ngay sëgg mu jàll comme ni ñu la koy waxee naan laal na sëgg mu jàll ak grande dame laak mujje bokk ndey ak bay laak bokk wërsëg laak te yow leer na li ngay wax laal la bu fekkoon yoon la rek yow doo ko def xam nga nañ waxante dëgg bu fekkoon ne tey jii la ñuy digal laal la bu fekkoon ñun la ñun duñ ko def parce que benn jigéen nanguwul wujje wujje benn jigéen bu ñu waxantee dëgg bugg ko dégg nga ay bokkoot sa laaj loolu yëpp dëgg la waaye benn jigéen buggul wujje kon laal la fi taxaw dafa metti tey li ko dal li dafa metti sa jëkkër am gel sa jëkkër di indi gel ci sa biir kër nga di ko muñ di indi gel sa biir kër ba ëllëg ko sa jëkkër takk gel boobu tey nga ni gel boobu carrément nañu ànd ci jàmm gel boobu oote ni moom day ànd ci jàmm parce que def na la muy def ba pare même su ko baaloo du mën a ne nañ waxante dëgg xol du óom bañ koy bés dafa metti dégg nga laal la lim def noonu la parce que mënut a tricher nit ki nag boo mënut a tricher li ne ci yow loolu ngay wane li ne ci yow loolu ngay wax la ne ca moom noonu la wax li ne ci moom moom la wax nañ waxante dëgg Mariam mënu ko def ni mu ko def pare te ko def toppaat ci ginnaawam nañ waxante dëgg neexut mère Diagne it man fi ma gisee affaire bi mooy kani buggul doomam am problème parce que ñaari jabar ku ci dugg dinga am problème te mère Diagne wax dëgg yàlla moom ak laal la ba ñuy ànd di jóg di daanu maram fekkewu ko nañ waxante dëgg nee nañ ragal féete nag day xañe wërsëg moom nag am na droit féete woo mare kii laal te dëgg nag kër gu ne boo fa duggee ci mère goro yi am nga koo féete wool nañ waxante dëgg dëgg neexul ma gis nga film bii li ne ci kër yi lañ luqati teg ko nit ñi di ci di di ko di di ko seetaan mais tey na commentaire yi mën na bari ku ne naan lii laa laa laa lii laa te fekk na bu doon yolo doo ko doo ko def dañu waxante dëkk Jalika tamit li la dal metti na waaye dama bëgg nga jugaat waat na nga melaat wane sa fulla wane sa fayda te xamante ne lii day paase dëgg la sa xarit bi la ko def moom dina ko gis ndax biram bu gisee xaritam moom boo xamante ne gën na ko bëgg moom lay takk jeex na yi nga film bii dañ koo teg pour li nga lebale ku ne moom ngay fayu mais neex na trop man kontaan naa ci trop laal la daal chapeau wax dëgg yàlla chapeau laal la fi nga ko téye foofu la bul wane tristesse ci sa bopp loo mënul bu ko def jeex na Marème jàll bu ñëwee di kokkali comme ni mu ko doon defee ci hôpital bi di kokkali di saboote am nga geen ak nangam nangam nga def tekk ne nem mu ne potu meew boo nee tekk rek tekk woon yoon jeex na wasalaam di leen ñaanal yéen ñëpp ah kontaan naa bëgg naa. allo bonjour tout le monde maa ngi nuyu waa maîtresse de non marié euh, groupe bi yëpp di leen def tout le monde gros gros donc ce que je voulais dire euh, gis nga li ma bëggoon a wax mooy. Euh, Jalika tey xolam war na sedd parce que gis na ne tey jëkkëram nekkul ne dafa nopp copinam parce que su fekkoon ne dafa bëgg copinam bu mu ko fekkee mu toog ak beneen góor euh, kon du si mer ba gedd dem bàyyi gelam jabaram foofu et puis aussi ne jàpp waayam ji parce que waa ji dafa baax dafa am classe et lu muy tontu biram li mu tontu biram loolu la nit bu yiw daf ko ne regarde y a un princesse qui m'attend y a une reine qui m'attend donc kon moom Jalika lu ko naqadi woon ci sëyam rek war na ko neex ci xaritam bu bees bi te mu góor góorlu jàpp ko séex moom te génne xelam ci biram parce que biram moom toujours ma wax leen ne biram moom nañ ko teg nee rek di ko seetaan peut-être il va finir mal parce que lu mu bëgg a dund vraiment nit ku baax du ko dundu Euh, Lalla nag bon mais Marème li ma siy wax toujours Marème mooy ñàkk teey Marème donte enstre ne ni wax bi mu wax ak Lalla tegal ko Cheikh mais aussi Lalla tey euh, Marème teyul Marème su teyoon kenn du ko gan parce que nu mu demee si hôpital bi di kokkali maire bi di kokkali ñii xam nga euh, ñaara mën kenn te ñett du bëre. même su ko Cheikh bëggee aussi Cheikh lu mu bëgg-bëgg Marème yaayam la gën a bëgg te su yaayam opposé woo ci sëy bi sëyu Marème mun na am problème kon Marème li ma koy conseil mooy mu def attention mu def attention qu'elle n'a qu'à tourner la page vers Lalla avec sa gorom gorom gorom la tamit waru ko kokkali waru ko def yenn yi parce que ñun suñu coutume Sénégal donc on n'a pas droit de ñëw di wax ak sa goro yenn affaire yi di ko kokkali di ko wax yenn wax yi vraiment Marème su teyoon kenn du ko gën ngeen baal ma maa ngi jéggulu si wax bi suma juumee je vous euh, def yéen a jëm bu man de seen théâtre bi moom neex na ma lool nag. dëgg-dëgg waaye nag Racky dem bur nga fexe nga jubbo ak Moustapha ndax Moustapha moom yëram na la waa bugg na la c'est que nag bu demee ba gis loo xamante ne ci yow xamu ko rek noonu la noonu mën a demee quoi waaye yow la ko bëgg waaye kii it Jalika sa boobu de moom vraiment na fexe. moytu biram ndax biram ne gis ni li li ko kii rek moo tax ma kii noonu waaye ah, loolu moom am benn benn benn biram kii nga mënoon a xaalitu kii bi pare jël ka bi pare it yow itam bugg a biram bugg la bugg la kii vraiment yow kii waaw waaye rakki moom vraiment vraiment fexe nga jubboog Moustapha yow daal. yaa ma gën a itteel si bi ndax dama gis fi ngeen jaar yëpp man yu mel noonu daal dafa am dafa am lu bari lu ma woon moo tax vraiment jàppal Moustapha Moustapha jàpp la waaw sa yaay nag jëm la jàppale ndax ndax ndax ki nga bëgg mu jàppal la ko mu bañ a jàpp keneen ku koo bëggul ndax xaalis yooyu du dara ki am def lay woon yoon nga réer mu fexe bi la indi la kooku moom mooy mooy sa waay mooy nit waaw. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax si série Un homme maîtresse waaw est-ce que moo ngi dem wala <laughs> ah, man maa ngi Europe mais daf may wéttali macha allah dañ koy déglu bu baax waa bu ñu tardee dañ koy kar si internet bi ah ah Lalla Lalla moom toj na fi Lalla daal la fi def lii yëpp moom mère Diagne. ah laal laal la wàcce nga sa boppa nag lii mu baaxul nag waaw delloo sil sa xel xam ne lii wëjj rek la waaw bokk wërsëg rek la waaw laal la boo gisee ne jàmm jàmm lay indi eh, nuñ ko waxatee mareem jàmm lay indi waaw macha allah ni muy doxalee mareem na continuer noonu waaw et puis seex na xam ne tamit ñaari jabar la yo ak yaay waaw yaayam moom kilifa la na toog tamit toogaayu kilifa te xam ne yenn yi kilifa du ko def mu ngi noonu mais daal euh, série bi neex na torop torop torop fi ngeen teg seen tànk moom noonu la yal na leen si yàlla jàppale si kaw si kanam tabaar fakkaala macha allah neex na daal mu ngi ñuy kii daal wéttali <laughs> mais c'est bien daal waaw na nañu xale yi ni ñuy bëggante comme kaawu kaawu euh, euh, joox joor moom ah loolu de am na waaye du ñëpp nag xarit am na ba léegi li waaw ba léegi nag c'est certes des fois mu am exception dina am si lépp mais eh, kaawu joor moom am na mais loolu li mu ko jëndee jaru ko waaw jaru ko ñaaw na torop donc euh, xale yi nañu nañu kiiwaat daal nañu dawal yërmande waaw nañu dawal yërmande mais daal série bi neex na ñu leen ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax waaye yërmande te rëcc noonu na namu naa leen yéen a ngi ci jàmm siyaar naa leen bu baax may ñëwaat di participer seen série bi neex na torop am na solo am na solo torop macha allah waaw li def neex na mi ngi nit ñi lu bari ñu ngi koy wàññi daal suñu suñu dund loo xamante ni ñoo ko doon dund mu nekk lëndëm lëndëm yéen a ngi koy leeralal soo ñëwee leen sant bu baax da nga jël ni def ko xarit fekk na yoo xarit boo xamante ne la mooy loolu li muy woote nekku ci moom yow fekk li ngay woote dëgg la ci yaw nga jël sa lépp waaw sa lépp nga bokkoo moom partagé ko moom loo nekk mu xam ko te fekk na yoo moom mooy loolu waaw moo dal Jalika nag ak kii moo leen dal Jalika xaritam boobu loolu moo ko ci dal moo ko indi problème yi mu yépp waaw parce que daf jël joor def ko comme xaritam def ko kom kum bokkal ndey ak baay situation bu mu ko fekk jële ko ci di ko defal di ko def lépp parce que nekkete boobu loolu lépp nekkul ci moom jëkkëram la soxla ba jël récupérer jëkkëram waaw loolu ñun jigéen ñi ñoo ci yeewu ci benn côté ndax man kaa bu mel noonu dal na ma sama jëkkër jël na koo xamante ni daf ko doon liggéeyal comme noonu man mujjee ñëw def ma xarit def ma lépp waaw dugg ma daal def ma lépp mujjee gi mu mel ni sama mag ma ne ma jàppee ko mag mu xamal ma sama biir xamal ma sama biti ndekete woo boobu moom am na luy seet yu koy nëbb man daal jàppee baax la bu ñëwee di ma conseiller su ma amee problème sama jëkkër dina fexe bañ juboo moom dafa bëgg a xam li nekk ci man waaw dugg na ma daal xam sama biir sama biti yëpp man tax sama jëkkër takk ko bañ mujjee sëy ñoom ñaar waaw sama jëkkër ñuy dund metti nag boo ko takkee ñuy dund metti man ak moom waaw moo tax dafa mel ni rek man ngeen jouer film bi daal yu ci bari moom moo ngi dindi ci man lu bari moo tax maa ngi leen di sant di leen gërëm waa beneen bi maa ngi ñëw si Marème Marème vraiment temps yi maa ngi koy dal waaye Marème moom fi toll nii moo gën a dal laal la laal la dal ba pare lim def noonu ànd ak maire bi jaaduwut waaw liñ def Marème moom jaaduwut normalement maire bi dafa war leen a boole ñoom ñëpp yamale waaye waruwut kum ci àndal ak kum ci waxantuma naa ne ko Marème làkku ko fesal ko ba mu fes ko ne ko bugguma la ba pare mu ne balaa may am jàmm ci mi bi day tas loolu tamit waru ko woon a def ndax ñoom ñaan ñëpp mooy seen kilifa waaw dafa waroon féete mënoon naa féeteeg laal la mënoon naa féeteeg moom te du tee te du tee mareem lim moom mu jox ko ko te du tee mu xam ne maire bi moom sawaru ci moom lool mais du ko woon comme ni mu ko waxee ni jaxran mën na ko bañ a wax wax daal mu koy dégg waaw tam fi mu toll nii Cheikh Diagne naan na lépp xam na ne li ñuy def lépp ay kuréel la waaye Cheikh Diagne ci mit ci benn côté moom it suñ ko waxee dafa war a teey waaw ndax nit moom tey da caa baax waaw laala moom bett na ma torop bett na ma wujje moom jërul lii waaw ah yàllaa leen boole bokk comme ni ko Marème waxee rek li ñu bokk mënuñu koo xam ne mënuñu koo lii kon nañ ko rafetal rek moo gën dañ ko rafetal rek moo gën waaye tey tey moom su ko mënee woowee si jàmm woo na ko ci ñaari yoon war na koo mën a wuy nag dëgg dëgg nag laa la moom laa faraloon waaye instant bii moom moo ngi jalgati man ni mu joué ak bi moom neexuma dara waaw neexuma dara ndax mënoon naa demee neneen ñu dul noonu comme que Marème woo na ko si jàmm ñaari yoon rek mënoon na koo fekk waaw beneen bi beneen kaa bi mooy kii rakki rakki tamit instant yi moom it am na problème trop waaw am na problème trop moo tax kii dafa war a ñëw jàppale ko copain boobu mooy fàttali bi sax dafa war a ñëw jàppale ko waaw ndax moom moo ko doon jàppale génne ko ci yu bari waaye bi ne war naa mën a ñëw jàppale ko fàtte lépp man daal kontaan naa ci yéen maa ngi leen di sant di leen gërëm yàlla na seen taxawaay yàgg ngeen yàgg dindi suñuy stress jërëjëf nekk leen ci jàmm